préfet bi def nga loo war a def li nga def rek nga war a def ndeem def nga ko nag kon defu na Aba Moussa préfet mbuur bi waa léegi nag ndeem def na ko rek def na lu defu lépp defu na. ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan dem non musuma gi waa bàkki xool ko ndeysaan ndeysaan ndeysaan Sëriñ Bamba soxna Fatou Thioune ginaar yi yi ma lekk ci yow fan yi semaine bii passé ginaar yi nga ma defal moo tax fi mu ne nii ay ceebu keccax laay wër ak ay ceebu jën ak ay ceebu yoxos parce que lu jëm ci ay ginaar ak ay yàpp moom ñemeetuma koo lekk benn kër bu dul sa kër barki sëriñ Bamba laahi wallaahi barki sëñ saa yu ma xëy damay nelaw sax di guu bi di ñëwaat guu bi ginaar yi ba fa lekk barki dem non musuma waaw barki xool ko ndeysaan ndeysaan ndeysaan